alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu xaar ba conférence yu ndaw yi jeex ñu doog a commencé bopp jëyit kon euh, ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala bi nu defal tawfiq boobu ba tey ñuy ànd ak yéen si sunu dawra nekk ak yéen si bés yi mujj si waxtu yu mujj yi laata ñuy tëj thème yu am solo yooyu ñu doon wëndeelu lépp aju si si almanhaju saxiix li shabaab almuslim fi l aqida wa tey nag ñu am mbégte di dugal kenn koo xamante ne kenn la ci dawra bi kenn la ci xarakatul falaax kenn la ku nu miin ci toor bi moo tax damay bëgg su ma mënoon wax sax bu leen ngeen bañ a nooyi may ñu seen xol ak seeni i nopp bu leen mënee gëm amul muskila mais li ma bëgg mooy ñu teewlu ànd ak al mufattish al imam al ustaz Saïd Khalid Gueye kenn la si doomu xaratul falaax dafa nekk koo xamante ne xaraka bi da koy ndamoo ndax judd na si xaraka bi jàngee fi ibtidaaya idaadiya thanawiya ginnaaw bi mu amee bac si amit lu gën a rafet macha allah magu xaraka bi bàyyiwul ko mu nekk xale bu ndaw terewul ñu bàyyi ko seen biir yóbbu ko si école yi gën a sori yi gën a jafe si dëkk bi ngir mu dundalaat xaraka bi wante dundalaat làkku arab dundalaat manhaj al islam bu wér bu mu defee si àll bi lu toll si juróom-ñaari at si côté année quatre-vingt-dix si booru trente fekk na moom expérience yu mag ñëwaat Dakar duggaat si école di defar di wëlbati ba yàlla dimbali ko mu dem EFI def formation continuer si loolu ba dem ba def inspectorat ba tey inspecteur la boo xamante ne ginnaaw bi mu demee defar tamit lenn si région yi Dakar delloo si nañ ko ministère delloo si na ko Dakar tey boo leen demee IDEN bu Tëngéej moom moo fi yor wàllu woowu lu loxatul arab yi kon bu namee ku mel ni tey euh, mu ñëw ànd ak yéen ak yu bëri yu ma bàyyi ah falilaal hamd yu bëri yu ma bàyyi mu ñëw ànd ak ñun si encore ab thème boo xamante ni ñun ndaw ñu dañ ko soxla ndax bis bu ne ñu ngi jàmmoonte ay jafe-jafe di soxla di ko xal mu ñëw ak ñun si thème boo xam ne thème bu technique la du jaage ne boroom xam-xam bu toog rek di charge si wàllu wàllu diin wante lu technique la muy nekk euh, euh, méthode comme li ñuy wax méthode ci français ah moom la ñuy indil. mu nekk fannu xallil mushkila wa islaamul xatam lu diis lu yaatu lu géeju loolu mais ñu am si moom yaakaar ne incha allah dinañ leen ko indil si nu mu gën a rafet man maa ngi doon bëbëb sax mu nekkoon lépp bil arabiya bu boobaa di ngeen gis incha allah lan moo tax man ji géeju woon mu nekk bi la bil arabiya ndax ñun ñëpp ñu delluwaat continuer jàng si Cheikh Saïd kon incha allah ma bàyyi leen ngeen gisal seen bopp. ñu may ko sunu xol ak suñuy bët ak suñuy nopp mu dem ak ñun incha allah si dem boobu fa jazakumullah xayra naam nañ ko bari moom ko am expérience si wàllu jàngale ak yar am na lu ñu leen bëggoon jàngal sax si wàllu powerpoint amuñu woon jot bi loolu yëpp di ngeen si jëriñu ko incha allah fa jazakumullah xayra li xew tam dafa ma mos tuuti bismillah shukran axaana abdallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd ikhwata al-iman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni ko mbokk mi waxee euh, thème bi bu ngeen seetloo ci calendrier bi xam ne moom mooy programme mu ni ñu ko libalee ni ñu ko tëggee mooy fan xallil mushkila wa islahil xata waaye damay commencé ci sama introduction ma ne am na benn joyanti boo xam ne joyanti nañ ko li nga xam ne moom la ñuy traité mooy bu ñu seetloo yi nga xam ne moom mooy fan la muskila muskila dafa yaatu mooy résolution problème dafa nekk loo xam ne dafa yaatu dañ koy fekk ci day am ay mushkilaat idaariya am mushkilaat tarbawiya am mushkilaat sulukiya fil amali wal afaal te yooyu la day dugg ci li ñuy tuddee islahul xata moo tax parti boobu kom islahul xata da koy ëmb ci jaanib suluk moo tax ñu li nga xam ne moom mooy thème bi ci maharat islaah al kon suñu waxtaan insha allah ci maharat islaah al xata lay nekk ñu séddale ko ci ay tomb tomb yi nag bëriwut mooy bi ci njëkk mooy taariful xata ak asbaabul xata ak shurutun yajibu tawaffuruha liman yuridu islaax alxata wa asalib islaax alxata maa namaazij min hadiyihi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñ waxee ne lii xata la kon xata lan mooy définition nan la ñuy xamee lan mooy xata ci boppam xata mooy lan xam ngeen bu ngeen demee ci fuqaha yi bu ñu waxee xata mooy lan mooy loo xam ne su ko nit ki defee dara du ko ci topp du ci am bàkkaar te kenn du ko jugé xam ngeen lan mooy xata inda al fuqaha waaye fii suñu waxee xata mooy suluk al-khata suluk al-khata suluk mukhalifin sulukun mukhalifun lis-sawab bitarki ma'murin aw fi'li manhi al-khata al-khata suñu waxee ne lii faute la lii njuumte la mooy mbir moo xam ne nit ki daf koy def te mu sori lool li nga xam ne moom moo jaar su ñuy wax nag lu jaar su ñuy wax sawaab mooy lu sharia tëral as-sawaab huna mooy loo xam ne nusuus shariya yi dañoo wax ne lii mooy lu baax lii baaxul kon foofu mooy miyaar nattukaay bi sharia lay doon lu sharia wax ne baax na loolu lu baax lay doon lu sharia wax ne baaxul dañ naan baaxul kon miyaar bi nattukaay bi du nekk suñu bànneexu bakkan walla du nekk ñun lu ñu dëppoo ne lii mooy lu baax waaye suñ nee fët xata mooy loo xam ne sharia ci boppam moom moo ne lii baaxul léegi nag su fekkee ne charia dafa ne lii baaxul ñaari wàll lay am benn bi mooy nga def lu ñu la tere a ah, nga bàyyi luñ la digal kon ñaari wàll lay doon soo bàyyee luñ la digal def nga xata soo defee luñ la tere def nga xata xam nga parfois nit ñi li ñuy jàpp ne mooy xata mooy ñu digal la dara nga bañ koo def ñu digal la dara nga bañ koo def loolu la ñuy jàpp ne faute la bu ngeen seetloo sax ci eh, suñuy eh, tëralin ñuy tëralin ci wàllu loi même dawra bi sax am na ay tëralin yu ñu fi def dañ naan bu kenn def nangam bu kenn def nangam def nangam boo ko defee def nga xamal waaye bu dee charia ñaari wàll yépp lay doon loo war a def boo ko defulee xataa la loo war a def boo ko defulee xataa la loo waroon a def boo ko bàyyee xataa wala luñ la digal it defuloo ko xataa la loo waroon a def bàyyi ko xataa ñaari wàll yépp lay am imma tark ma'muur aw fi'l manhi tark ma'muur aw fi'l manhi kon loolu ci gàttal moom mooy taarif al xata asbaabuhu léegi nag lan mooy waral nit ki mu juum li koy waral mu juum li koy waral mu def erreur mu def li nga xam ne faute la dañ ko koy tere li waral nit ki def xata ay mbir la yu bëree bëri waaye yiñ ciy tënk mooy tomb yi nga xam ne moo nekk seen kanam bi ci njëkk mooy aljahl réer loolu tax cheikhul islam ibnu taymiya day wax ne réer mooy cosaanu def lu bon mooy cosaanu def lu ñaaw te réer nag lu dangereux te feebar la boo xam ne dafay yàq société dafay yàq nit day yàq yaram ñaareel bi gannaaw réer mooy réy réylu al kibr bu ngeen seetloo ibnul qayyim rahimahullah dafa bind ci téeréem bu ñuy tuddee kitaabul fawaid mu ne usulul xataaya thalath ñu ne ko ban ak ban la mu ne awalan al kibr ndax moo tax iblis ñu dàq ko àjjana rëy ma manaaka am na ñaaw ban ak ban ana ana ana ana ana ponkal yi alpanakila ayna hum naam ma manaaka alla tasjud ak ma manaaka an tasjuda id amartu kon lan moo tere woon dafa ne ana xayrun minhu kon moom delluwaat na lan ci cosaan al asl te asl bi amul njëriñ al tiin wala naar amul njëriñ li am njëriñ mooy lan ragal yàlla annaasu min qibali taswiri as ah annaasu min qibali taswiri akfaau abuhumu aadamu wal ummu hawaau kon kibr moo génnee iblis ci mbooloowu malaaka yi te moo tax ñu rëbb ko moo tax rëy-rëylu mooy tax nit ki bañ a nangu dëgg te ku nanguwul dëgg sa njuumte day bari da féeteerlu te ku féeteerlu njuumte day day bari ñetteel bi mooy alxirs xër xër boobu it mooy ñaareelu asl bi nga xam ne moom mooy cosaanu bàkkaar te moo génnee woon suñu maam aadama ak xawa ci àjjan wa kula minha ragadan xaytu chituma wala taqraba hadihi lchajara fa takuna min alzalimin xool leen àjjana li mu réyee samaraat yëpp nekk fa ashjaar yëpp nekk fa lépp am fa ñu tere la benn garab kon bu dul woon xër ñu ko def mooy al kibr wal xirs ñetteel bi mooy lan al mooy iñaan looloo tax ahlul kitaab yahud yi nekkoon Makka ak Madina moo tax gëmuñu yonte bi sallallahu alayhi lan moo tax nanguwuñu dëgg lan moo leen dugal ci seen erreur yooyu lan la xasad te loolu cosaan la ndax gannaaw njuumte iblis gannaaw njuumte suñu maam aadama après ñan ñoo njëkk a soqeeku ci maam aadama ak xawa kan ak xaabil ak haabil lu tax kenn ci ñoom rey moroomam xasad أصول الخطايا ثلاث الكبر والحرص والحسد والج... no. هذه كما ذكرها ابن القيم لكن في الأسباب أسباب الخطأ الجهل الحرص الكبر الحسد جهل did it رابعا الهوى top بانيه بكر alhawa ndax topp sa bànneexu bakkan dalay gumbaloo looloo tax bu ngeen seetloo alyahud looloo mu dëgg asxaabul bidaa wal ahwa gis ngeen bañ nañ ko sax ba borom xam-xam yi ñépp ñi nga xam ne nanguwu ñoo jëfe al manhaju saxiix bi nga xam ne moo ñu dajale fii tey ñu ngi leen di tuddee asxaabul ahwa alquran day wax ne li leen teree nangu dëgg ak li nga xam ne moom mooy njub mooy lan dañoo topp seen bànneexu bakkan te loolu it seytaan moo koy dugal ci xolu nit ki moo tax waa ji di wax ne wa xaalifi nafsa wa shaytaana wa asihima wa in huma mahadaka nusxa fattahimi beneen sabab bi mooy algadab mer wa huwa xatir wa maaluhu asir mer day day def lu muy def nit ki mooy da koy wommat ci li mu bëggul mu neex ko mu naqari ñaata yoon nga gis nit koo xam ne day mer su meree mën naa wax baat boo xam ne da koy génnee ci lislaam ñaata nit nga gis ñoo xam ne dañuy mer lor seen soxna lor seen doom lor seen dëkkandoo lor seen xarit après quelques secondes ñu rëccu lan moo leen rëcculoo parce que yëg nañ ne ñoom ñii kat def nañ erreur lan moo leen tàbbiloo ci erreur bi mooy lan mooy mer beneen sabab bi mooy annisiyaan fàtte fàtte it day tax nit ki def erreur wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasi lan la fàtte ndénkaane borom bi subhanahu wa taala fan alam ahad ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan innahu ha kon moom noonu la kama axraja abawaykum min aljanna yanziu anhuma libasahuma xalaas kon moom suñu noonu la daf lay pousser ba nga fàtte li nga xam ne moom la sa borom digaloon bokk na it ci liy jumloo nit ki mooy ñàkk ak gaawtu ñàkk ak gaawtu yooyu yëpp dina ñëw ay misaalam dina ñëw ci kanam bokk na it ci liy jumloo nit ki li ñuy tuddee al ijtihaad xam ngeen ijtihaad mooy teg sa bopp fenn fi benn daraja ci xam-xam nga ne non cest à bi bu ma ko defee nii noonu lay demee far na nga dugg ci erreur parce que ijtihad laysa kala al mubahan li kulli man habba wa daraja min an du tool bu ñu ñagut ijtihad da ngay nekk high class day am fooy toll day am yu yuñ la tappal nga door a tasaddur lil ijtihaad waaye ijtihaad du waay bu fàq ci lang bi rek ne moom mujtahid moo taxit boo ijtihaadee te garaat yi tegoogul say mbagg penalty yi day bëri gars yi dañuy siffle rek prix yi prix te loolu it dina feeñ insha allah ci kanam kon lii ci gàttal ay mooy asbaab yi nga xam ne mooy tax nit ki di dugg ci erreur ñu ñëw ci ñetteelu tomb mooy shurut yajibu tawaffuruha liman yuridu islaax al xata kon corriger erreur du ko tëb rek mën ko dafa am ay charte yoo xam ne su dajewut su dajewul nooy def da ngay da ngay maandu bi ci njëkk nag charte bu ci njëkk mooy al il faut nga sellal ndax ki ngay correction islahul xata day dugg ci benn bunt bunt boobu mu ngi tudd al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar te balaa ngay digal nit ki ne lii lu baax la daf laa war a wóor ne lu baax la balaa nga koy tere ne jàpp ne lii lu bon la daf lay wóor ne lii lu bon la il faut nga am ay dalil kon nit ki dafa war ne suy digal nit ki mu bàyyi li mu jàpp ne erreur la xata la loolu dafa war a dugg ci baab amru bil maaruf wa nahyi anil munkar benn dafa war a nekk it lin nasiha lin nasiha mu nekk min baabin nasiha nga laayee sa mbokk jullit biir dafa war a nekk it da koo war a sopp da koo war a bëggal li nga bëggal sa bopp parce que yow daf laa leer ne lii kat baaxul kon sopp bi nga koy sopp bañ mu dugg ci li nga xam ne day da koy jural ëllëg ay daan ci borom bi subhanahu wa taala nga fexe koo fànqal kon da koo fànqal lor bi nga xam ne moom moo koy dal kon li nga bëggal sa bopp nga koy bëggal kon sooy digal nit ki du baax wala nga koy tere lu bon wala nga koy corriger na la loolu motiver pour nga islaax xata waaye nekkul pour soo paree nga ne nit ñi ah, diwkat bu dul woon man laa ilaha illa allah kon la budda bil ixlaas thaniyan al ilm kon da ngaa war a am xam-xam mooy premièrement daf laa wara a leer ni lii nga nar a tere waaj yi correction bi nga nar a def daf laa wara a ne lii kat xabaar su wóorul amuloo droit di tere nit ki fekk li nga koy tere dara leeru la ci misaal Omar ibnul Xattaab Omar ibnul Xattaab benn bés radiallahu anhu moom ak benn saxaabi bu tudd Amr ibnu Hisham waa ji daa ñëw di jàng Qur'an jàngee ko ni nga xamee ne Omar mokkalee noonu xamee ko noonu jàngee ko noonu parce que riwaaye boobu Omar xamu ko Omar poñe ko jàpp ko jiital ko ba ci kanamu yonent bi saa salaam yonent bi mu ko séenee ne ko ala rislik daaho ne ko waa doo bàyyi jàmm bàyyi mu bàyyi mu ne ko lu xew lu leen boole ba nga koy poñee nii mu ne ko waay saa yi maa ko dégg muy jàng quran ci waay anam boo xam ne kenn da koo xam mu ne ko ah wóor na mu ne ko waaw mu ne ko waaye yow léegi bàyyi ko mu yow jàngal li nga xam mu jàng mu ne ko hakada unzil wa mu ne waa ji jàngal waa ji jàng ba noppi yonte bi ne ko hakada unzil léegi kan moo juum lu ko juumloo ah ñàkk xam ne lool taxaw kon balaa ngay tere lenn na la leer na nga am xam-xam bu leer ne kat jaaduwut beneen bi beneen bi mooy même soo koy tere léegi leer na na nga xam ne it ann al xataa min tabiati al bashar kan moo fi maasum kenn la ahad kon ann al min tabiati l bashar na nga xam ne it njuumte dañ koo mooñaaleeg doomu aadama kenn munu cee rëcc kon kullun minna yusibu wa yuxti hatta al anbiya dañuy am isma bu leen yàlla yónnee isma bi li tax mooy pour protéger leen risaala bi benn sikk du ci am pour mun a ñàkk woote bi ñuy woote waaye ci seen mbiru doomu aadama nag da ciy am li nga xam ne dañ jàpp ne ay axbaar kon loolu it laaj naa xam li tax nga war koo xam mooy mooy su fekkee da ngay corriger nit ki nga defee ko ci anam bu yéwén parce que yow loolu nga koy corriger suba mën na laa dal parce que parfois nit ki jàpp ne moom rek moo xam daan ah waaye lii de jaaduwut lii kenn du ko def dangay dem ba jàpp ne yow moom xalaas sangu nga ba set yow moom doo dootoo juum beneen mooy balaa ngay wax ne nit ki dafa nekk ci erreur il faut nga am na di ñuy tuddee bayyina mooy dalil bu wër péng ni lii muy def jaamut loolu tax benn waay ci kanam ci misaal yi sax dina gën a feeñ bi mu ñëwee di defloo benn nit ki def benn affaire mu ne ko erreur la ba defloo ko leneen loo xam ne moo ko dugal bi mu ñëwee ci yonent bi saa sallam lu mu ko wax mu ne halla sa'altum lu tere ngeen laaj di wax ne nangam am loolu am si la yi insha allah dina ñëw looloo tax cheikhul islam ibnu taymiya day wax ne wa ahlul ilmi wal iman laa am xam-xam te am ngëm yàlla kenn du leen teg ci daraja ne du ñu juum gis ngeen fii léegi sax parfois dangay gis ku nekk ci ay tooxi duunam sax ñu ne non c'est-à-dire yéen a comprendre lu tax mu koy def parce que bu ngeen tolloon ci dayoo bi mu toll walla xaal bi mu toll walla xam-xam bi mu toll du ngeen wax ne li mu def erreur mu ne ahlul ilmi wal iman la yuassamuun mooy kenn du leen def ay nit ñoo xam ne duñu juum waaye it wala yu assamu mooy kenn du leen jàpp ne li ñu def erreur la ba teg leen bàkkaar fekk leeru la ne li ñu def erreur mooy lan la lan la wax ji di jàngale mooy laa taqdiisa wala tabxiisa xam ngeen taqdiis ak tabxiis taqdis mooy doo respecté sa nit nga naw ko nawloo xam-xamam nayloo nawloo dayoom ba yëkkati ko ne yëkkati ko ba mu dépassé doomu aadama loolu mooy taqdis tabaxiis nag mooy doo wàccee nit ki ba lu mu def rek nga ne moom ci njaaxum rek lay nekk mooy wala tabxasu naasa asyaahum mooy même bu dee agresseur même bu dee bandi même bu dee ak lu mu munti doon dina def lu baax du tout le temps bu def lu bon iblis ak seytaan ku ko gën a bon abu hurayra ku ko jàngal ayatul kursi muslaay la guddi du iblis pourtant suñu noonu la kat kon la taqdiisa wala tabxiis wala tabxasu nnaasa asyaahum kon lu waa ji lu mu bon bon bon bul ni toujours lu mu def rek lu bon la lu ñaaw la dina def lu baax waaye it lu mu baax baax baax baax bu ko yëkkati ba mu dépassé plafond yi ba mu yegg ci malaaka yi doomu aadama rek la mun a doon ah daxalat affaire bi dugg na ñetteel bi ci shuruut yi mooy al xikma mooy arraxibul asfahaani biñ ko laajee lan mooy xikma mu ne mooy isaabatu lxaqi bil ilmi wal aql isaabatu lxaq bil ilmi wal aql mooy xikma mooy nga am xam-xam ba pare xam ni ngay waxeeg nii chaque fois nga dégg ñoom xabibullaay ñu ne saay kay moom ku bëri xam-xam la ku mun a waaraate la mais daal li ko yàq mooy amul xikma li tax ah xikma dafa baax udu ila sabili rabbik bil xikmati wal mawidati alxasana beneen charte bi mooy arrifq mooy da nga war a yërëm nit ñi baax ci ñoom subhanahu wa taala moom moo ñu sàkk waaye bokk na ci ay melokaanam rauf ittasafa bi rafa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xadis bu suñu yaay Aïcha mu ne inna allaha rafiqun yuhibbu rifq wa yuti min arrifqi ma la yuti ala al unf wa ma la yuti ala ma siwa ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه kon kuy digle lu baax di tere lu bon dafa war a nekk rafiq moo tax ci darajaatu inkaaril munkar ibnul qayim day waxaat ne li yakun amruka bil maarufi maarufa wal yakun nahyuka anil munkari laysa fihi munkara liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa waliyakun nahyuka anil munkari laysa fihi munkara booy digle lu baax def ko ni mu gën a rafetee booy tere lu bon bu ko defee ni mu ñaare wala tasubbu alladina ah fa yasubbu llaha loolu lan la inkaarul munkar bil munkar bi tariqa munkar kon labudda bil ilmi wal xikmati wal rifqi beneen bi mooy al adl nga maandu maandu bi mooy lan sànq waxoon nañu la taqdiisa wala tabxiisa nit ki li ngay corriger ci moom mooy faute bi mu def erreur bi mu def waaye bu ko atte moom ci boppam bu ko attee moom ci boppam waaye booy attee atteel jëf ji ci boppam jëf ji waaye moom ci boppam bu ko atte bu ko dëkkal fu mu dëkkul bu ko jugé te faatoogul bu ko jugé te faatoogul te it maandu it maandu gi it day feeñ ci lan mooy du koo xam ne du sa mbokk du sa xarit du sa am di jàmm saa yu defee penalty yi nga sifflé te sa mbokk bu defee penalty yi doo sifflé wala sa farandoo bu defee penalty yi doo sifflé keneen ki bu defee penalty yi nga sifflé kon il faut nga maan sawaun kaana qariban aw cheykhan aw ngeen bokk daayira aw ngeen bokk association aw aw aw na def waxoon nañu li njëkk mooy al ixlaas kon il faut nga maan wala tabxasu nnaasa ashyaahum wal aks aydan laa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala allaa taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa buñ paree ci loolu ñu ñëw ci umuurun yajibu muraatuha inda islaahi alxata mooy koo xam ne dafa bëgg a corriger gannaaw ba mu sellale gannaaw ba mu nekkee boroom xam-xam gannaaw ba mu amee xikma gannaaw ba mu amee yërmande gannaaw ba mu maandoo war naa bàyyi xel mbir yi ñuy tudd bi ci njëkk mooy at tadarruju bi tasxiixi ahami fal aham bu ay ci amee da xool bi ci gën a dangereux bi nga xam ne gis ngeen nit su feebaree su demee hôpital ba ñu defal ko rajo walla ñu passé ko visite walla walla walla ñu defal ko scanner médecin bi mun na am sax moom bi muy dem da doon wax ne sama bopp mooy metti walla temps yi damay miir waaye suñ demee ba xool ko feebar boobu miir boobu mu doon wax wala boobu buy metti bi dañ koy fàtte su fekkee ne dañoo fekk ci moom siiñu feebaru suukar kon boobu day dañ koy fàtte médecin bi lu mu koy wax saa yi kat war ngaa jóg sa bopp war ngaa wàññi kat suukar war ngaa def nangam war ngaa dem sport war ngaa si parce que lan moo tax parce que moom la mu ñëwoon di ko jàmbat ndekete am na lu gën a grave kon yow su fekkee ne nit kii dafa ñëw def njuumte da ngay xool njuumte yi mu def lan moo ci gën a danger ci misaal nit ñoo xam ne seeni pas-pas wérut waaye nag ñu ngi julli ñu ngi woor parfois ni muy jullee sax li yàlla xam doy na da koy dóor mu daanu xam nga sénégalais moom nanguwu ñoo yàgg ak yàlla waaye match quatre vingt di minutes dañ koy toog te duñ ko yëg léegi ko balaa nga ko naan saay booy julli da def nii def nii kon fe fexeel nga commencé ci lan ci shirkiyaat aqaid yi pas-pas si ngeen ak ah, looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy tuddee sunnatu tadarruj ba mu yónnee Muaaz pour mu dem Yaman lu mu ko njëkk a wax innaka tati qawman min ahli lkitab après falyakun awalu ma tadcuuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah après fa inhum ataacuuka li zalik mu door a indi li ci topp waaye ñëw rek ne ko jëlal sa liste boo demee ne leen comme ni Abibulaay def ñëw taf lépp première bi ba vingtième bi ne leen acca lii ngeen war a def déedéet dafa ne ko boo ñëwee ne leen yàlla kenn la moom rek lañu war a jaamu leneen lu dul moom amul njëriñ ba nga gis leen nag ñu nekk ci buñ ci nekkee ba mu dëgër après na nga door a indi leen loolu tax yàlla subhanahu wa taala ñuy jàngal même ni mu bindee nature bi sunnatu tadarruj yàlla mënoon na xëy subaa wala ngoon wala heure bu ko neex mu ne asamaan seeg suuf seeg jawwu jeeg lépp ne leen kaaf nuun kun faye kun waaye ba muy bind asamaan ak suuf lu mu wax fii sittati ayya sunnatu tadarruj la alquran bi mu koy wàccee day indi benn saar indi ay aaya tadarruj nañ xool li gën a am solo nga xool li gën a nga fexe loolu dañ après nag nga ñëw ci ndaw ndawaan kon tax di taqdimul ni fal fal muhim bu dee ay jëf la nga xool li muy def yi ciy màbb jëf nga fexe ko dégager ba pare nag door koo wax yeneen saaniyan ictibaaru makaanatil muxti mooy waa ji ngay corriger di won njuumteem léegi est-ce que man ni may corriger sama doom est-ce que noonu laay corriger sama élève est-ce que ni ñuy corriger mag noonu la ñuy corriger xale ni ñuy corriger directeur u école est-ce que noonu la ñuy corriger benn benn professeur est-ce que noonu la ñuy corriger benn cheikh est-ce que noonu lañuy ñuy corriger benn njiit benn sultan déedéet kon ku nekk dafa am nu ñuy niñ koy aborder ku nekk dafa am ni ñuy waxee moom kon il faut nga bàyyi xel waa ji ngay waxal kan la kan la cible bi kan la nga xool yan baat nga war a tëgg ba mun a wax ak moom ba convaincre ko waaye ah non comme def na fena penati rek nga seex sa sifflet gis nga am na ci yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa day gis penati mais du sifflet de day bàyyi gaa yi sifle ko da leen da koy boole gaa yi pour mu gën a pour mu gën a deñ moom au lieu mu wax du wax de te loolu dina feeñ ci kanam mooy waajoo xam ne daa def ngandam penaat yi pour mu won société bi nii lii baaxul te it waa ji ci boppam mun na am sax bu ko yonent bi saa salaam waxee ne baaxul sax mun na am mu def ko tey bu subaa mu fàtte defaat xam nga lu mu wax dafa ne waa ji mu tooñoon mooy ki doon lor dëkkandoo yonent bi wax ko dara rek dafa ne waa dëkkandoo bi ci boppam la ne ko génnal jëlal say bagage yëpp nga génnee ko ci mbedd mi nga toog ku romb rek bu la laajee lan la lu la dëkkaloo fii nga ne ko damaa amul kër bu ma luwe déedéet damaa amul ku ma fat déedéet lu waaye yow lu la dëkkaloo fii ci mbedd mi mu ne ah sama dëkkandoo bi ma dëkkal kat daf may lor gaay gars yi ku romb rek rëbbul dëkkandoo ku romb rek rëbb ko gis nga au gis nga moom siflewul de daa bàyyi gars yi gis nga waaj ni mu def est ce que loraat na ko moom moo ñëw ci boppam ñaan ko ngir yàlla ne du delluwaat ci jëf jooju ba waaj loolu daf ñuy jàngal lan mooy parfois di nga am xarit wala koo xam wala koo gis mu def erreur te yow mun na am amu leen benn affinité bi amu leen benn relation bi mais gis nga koo xam ne moo ko gën a jege moo gën a ràññeeku ci moom au lieu yow nga naan ko saa yow li ngay def dara baaxut yow lii erreur la boo ko bàyyiwul safara nga jëm de au lieu nga wax ko loolu xoolal kan la nekkal par exemple xoolal benn xaritam ku ko gën a jege ku gën a kii ci moom koo xam ne wala sax benn sëriñam wala koo xam ne daf koo naw lool nga dem ci kooku ne ko man daal damaa seetlu diw day def nangam ak nangam boo mënoon waxtaan ak moom ci loolu amaana yow soo ko ko waxee du ko nangu wala it bon danaan ana man ana diw waaye su fekkee ne kii moo ko ko wax xaritam bii jege ko lool buggal ko lu baax nekk kilifaam nekk lépp bu ko waxee lool dina ci bàyyi xel kon makaanatul muxti dafa am solo waaye it makaanatu man yuslihil xata dafa am solo kon makaana bi ñaari wàll yépp la yow ki juum kan la est-ce que xale la est-ce que mag la est-ce que koo xam ne bis bu nekk lay juum walla c'est la première fois loolu dañ ko war a bàyyi xel waaye yow mi yow mi nga xam ne da bëgg corriger it yow yaay kan ak ban rapport nga am ci moom ñaari wàll yëpp da ciy am da ciy am solo xoolal loolu su fekkee ne yont bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon corriger yooyu moo nekkoon ay stratégie yu muy def pour jeexal far effacer lépp loo xam ne erreur la ci jamono kon famille ba bi aw la ñun jëfee loolu bokk na ci it mooy at tafriq bayna al muxti عن جهل وبين المخطئ عن علم أو عمد أو تقصير أو اجتهاد war ngaa ràññee kii def erreur bi est-ce que moom dafa réer xamul dafay dafay dafay dafay soxla ku ko jàngal walla moom dafa am subha dafa am sikki sàkk dafa soxla ku ko leeralal walla moom dafa sàggan dafa soxla ku ko fàttali walla moom dafa féttéerlu daa soxla ku ko waar si muxti bi ci boppam war ngaa xool moom ban genre est-ce que jaahil la wal jaahil yaxtaaju ila taalim est-ce que moom saaxibu shubha la wa saaxibu shubha yaxtaaju ila bayaan est-ce que moom gaafil la wal gaafil yaxtaaju ila tadkir est-ce que moom musir la yaxtaaju ila mawida kon loolu yëpp dañ koo war a dañ koo war a xool looloo tax booy xool Muawiya bun al-Hakam as-Sulami benn saxaabi la moom xamul woon ne wax ci julli day yàq julli daa ñëw gaa yi di julli benn waay ne ci sóoli mu ne ko yarhamukallah gaa yi xaw koo xool mu ne leen daa mel ni sax da leen ne du ngeen may xulle ci te ci biir julli gi la de après ñu sëlmal mu ne xool leen mu ne maa raaytu mualliman misla rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ci teg ne maa gëdduma yedduma ayibaaluma waaye dafa ne ma Muawiya kaay ba mu jege si mu ne ko inna hadihi salaa laa tasluxu fiiha shay'un min aqwaali nnaas waaye kàbbar la jàng Qur'an tudd yàlla moo tax ba mu paree mu ne maa raaytu mualliman misla rasulillah moom xamul woon ne wax yarhamukallah wala wax ci julli gi day yàq julli gi kon kooku lu mu soxla ku ko jàngal arab yi ñëw ci ñetti riwaaya benn arab yi ñëw ci jàkka ji ci benn riwaaya bi dafa ne waa ji daa ñëw mu baayaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci mu ci riwaaya ibnu abbas daa ñëw mu baayaa ko ba pare dem ba ci ruqu miir bi wañ tubay ji après joxoñ joolaan taxaw di saw gaa ma ma mooy yow xanaa na ngaa dof yonent bi saa sallam ne leen daawuhu la tuzrimu daawuhu bàyyi leen ko la tuzrimuhu bu leen ko lor ba mu yeggal ba mu pare mu woo mu ñëw mu ne ko place yi kat place yu sell la lépp lu jëm ci sobe ak luy taqal baaxu fi mu ne lu ma ci xam moo tax bi mu gessoo gaay da da leen xaw a ciipatu sax ne leen allahumma ci beneen riwaaya allahumma arhamni wa muhammada wala tarham maana ahada ent bi ne ko déet saa yi xatal nga lu yaatu ko xamul xamul gis ngeen ñii xool leen rifq yonent bi saa salaam xam na ne xamuñu moo tax mu yërëm leen gis nga bi mu pare dafa ne gaa yi indi leen si wo ndox ngeen sotti ci xool leen beneen njàngale bi ci nekk mooy moom bàyyi na xel waaju mooy balaa beneen mafsada bu gën a grave di ci tegu benn bi mooy waa ji fi muy saw benn place lay doon sobe bi foofu rek lay nekk mais bu gaa yi daloon ci kawam jàkka jëpp am sobe loolu benn ñaareel bi buñ dalee ci kawam saw mi day arrêté te day am lu ñu tuddee ixtibaas te loolu day jural nit ki lool te najaasa te mën nañ koo fobeere dindi najaasa bi rapidement ci siwo ndox ak waa ji feebar ba muy jar ñu koy opérer wala ñu koy yóbbu CTO lan moo gën a grave loolu tax jàngalekat al amir wan naahi dafa war a nekk ak tafriq moo tax mujtahid nag bu amul xam-xam bi mu ci tollee yonent bi saa salaam arabi bi yant bi da koo yërëm xoolu ko xoola beneen waay ñëw na fekk yant bi sallallahu alayhi wa di dox kooku it araab la di dox ci mbedd mi mu poñe ko ba yant bi sallallahu alayhi wa sallam mujj geesu bif mbubu bi ne ko jox ma ci li la yàlla jox yant bi sallallahu alayhi wa sallam daa geesu reetaan reetaan ay ku ko defoon ku ku ku langoon ci karawaatu Macky Sall bi bif ko wax leen rek pare ngeen wax de pare yonent bi saa sallam da ko xool waaye nag kooku lan la dafa xamut waaye keneen ki nga xam ne nag da doon xam-xam lu bi mu ko defee yonent bi saa sallam dafa dafa taral ci kaw mooy ki nga xam ne dafa dafa joxe fatwa te amul xam-xam mooy benn waay ñu dem ci benn xare ci benn tukki waa ji ñu jam bopp bi nàcc après ci guddi gi mu gént am janaaba gars naan ndax est-ce que war naa sangu wala warut sangu benn séeréer tëb ne waay dafa war a sangu mu sangu bi mu sangoo ba pare mu dee daa faatu bi mu faatoo ñu wax ko yonent bi saa sallam lu mu wax waa ji pourtant dafa juum daa def erreur mais dafa fatwa ci ijtihaad ijtihaad boo xam ne amul xam-xamam garaat yi teguwul ci mbagg gi yonent bi dafa ne lu mu ko wax mu ne ko qataltumuhu qatalakumullah halla sa'altum id lam ta'lamu innama dawaa'ul 'ayyi shifa ku xamul da ngay laaj xool moo tax al muxti il faut nga xam yow ki nga amal affaire kan lan moo ko tax a lan moo ko poussé ba mu def beneen itibaar bi ñeenteel bi mooy iradatul xayr laa yamna min al inkaari alayhi ki nga xam ne dafa juum même su fekkee ni yiw la doon def dafa bëgg lu baax comme def na njuumte du tere ñu ne ko ah saa waay da ngaa juum loolu xadis amru bnu salama amru bnu salama nee na benn bés nekk nañ ci jàkk ji ñu nag ibnu mas'ud mu ne abdourahman bun awf génn ci jàkk ji gannaaw bañ jullee ba pare mu ne ah man kat gis naa ay gaa ci biir jàkk ji ñu ngi naan benn waaye ngi dajale ay xeer di lim par benn ñu naan nañu wax subhanallah nañ tudd yàlla muy lim ñuy tudd yàlla muy lim par benn ñuy def noonu mu ne ah man de gis naa gaa yi di def li nga xam ne gisuma woon kenn ci saxaaba yi di ko def après mu ne Abdourahman dellu si ne leen li ngeen di def kat leen koo def ñu ne ko pourtant ma aradna illa al xayr ma aradna illa al xayr mu tontu leen mu ne leen kam muridin lil xayri laa yusibu ñaata nit nga gis ñoo xam ne dañ naan ñun kat lu baax lañ doon def te fekk ne lu baax loolu duñ ko am mukk lan moo tax mooy xam-xam gi moo tax jaamu yàlla ngay defee ngay jëfee santaane wala ngay bàyyi tere il faut xam-xam loolu tax gannaaw loolu dund nañu gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amru bnu salama xam ngeen ci ci saxaaba yi gën a tuuti la bokkoon même jamonoy abu hurayra booy la woon mu ne moom gannaaw bi yonente bi sallallahu alayhi génne àdduna abu bakr umar usman ali mu ne ci xilaafatu ali mu ne ñooñu ma gisoon ci jàkk ji ñuy def façon boobu pour wane ne ñooñu wax ne lu baax la ñu bëggoon a def mu ne ñooñu ñëpp après dañoo génn l'islam mu ne ñooñu doon wax ne looloo tax wax jële am solo kam muridin lil xayri laa yusibu moo tax amr mu ne ra'ayna ammata haula'i wallahi alladina kanu yaquluun ma aradna illa alxayr raayna ammata ulaika alxalq yutaacinunana yowma alnahrawani maa alxawaarij mu ne ñooñ doon wax ne ñun kat lii ñuy def lu baax lañ ci nam mu ne ñooñ ñëpp dañoo génn lislaam ndax ñooñu dañ doon xeex ak ñun ànd ak gurubu xawaarij bokk na ci loolu it li ñu war a muraaxaat mooy alxadar al adlu wa adamul muhabaat mooy kii bu fekkee ne sama mbokk la sama xarit la sama doom la sama nangam la duma ko wax dara waaye su fekkee ne keneen la wala faruma ak moom wala ay xalaatam du sama xalaat ma ne juum na fii def na lii def na leen moo tax yonent bi saa salaam bu ngeen seetloo kan moo nekkoon xibbun nabi ah Usaama ibnu waaye ba mu defee penalty sifflé nañ ko am sifflé wuñ ko ah lu mu ko atashfau fi xaqin min xuquqi llah ah atashfau fi xaqin min xuquqi llah kan la ko doon wax xibbuhu wa xabibu soppeem alxadaru min islaaxi xatain yuaddi ila xatain akbaru min booy corriger it war ngaa mesurer est-ce que kii kan su ma ko waxee lim lii est-ce que du bañ ba féttéerlu ba def lu gën a war ngaa mesurer xool yenn stratégie ngay dégager ba mën koo convaincre ba du continuer ci li mu doon def mbaa mu loolu tax euh, Ibnul Qayyim day wax ne inkaarul munkar ala arba'i darajat awalan an mooy bu la wóoree ne boo ko inkaaree dafay deñ bu boobaa day nekk waajib ci yow nga def mooy su la wóoree ne dafay jóge bu boobaa dafay waajib ci yow nga inkaar ad daraja thaniya an yaqilla wa in lam yazul mooy même bu fi jógewul it na wàññeeku mbokk ma de waxoon na ko keroog Cheikh naa fay jazakallah xayran ne woon nañu gis ngeen parfois ci internet am na yoo xam ne message yooyu jàllale dina tax yenn nit ñi naan ah saa waay kii man de lii boo moytuwul comme gis naa benn waaye bu ko naqaru gis naa benn waay bu ko nangam gis naa benn waay bu ko nangam man daal lii loolu ma ko defati même su fekkee ne sax amaguma ci xam-xam loolu sax da koy mu dem laajte bu ko laajtee ñaata ñoo ko doon def junni léegi junni bi mot na wala motul wàññeeku ñetteel bi mu ne an yata saawaya mooy maslaha bi mun naa am mun naa bañ am bu fekkee tolloo la nag loolu makaanu ijtihaad la ijtihaad waaye nag su fekkee nag affaire bi du fi deñ bu la wóoree ne boo ko waxee da yokk si xar mi kawat bu boobaa dañoo dañ laa tere nga inkaar munkar boobu te loolu ibnu taymiya daf koo dal jullit ñi ci jamonoy tataar ñi nga xam ne dañ doon xeex jullit ñi di leen faagaagal jamono jooju dañ doon rendi jullit ñi ba seen deret di daw waame ci mbedd yi deretu jullit ñi laa jamono yoon dañuy rendi jullit yi ba seen deret di daw waame xam ngeen waame ñu ne jamono jooju benn bés Ibnu Taymiya dafa romb ak ay nitam ñu gis tataar yi di naan sàngara ñuy naan sàngara benn waay tëb ni xaaral mu inkaar Ibn Taymiya ni ko déet saa ñii kat seen naan sàngara day noppal jullit ñi ba kenn du leen rendi ndax yàlla dafa wax ne sàngara day lan ah ak lan wa yasudduhum an is-salaa wa an dhikrillah waaye ñii moom seen sàngara da leen di tere rendi jullit ndax suñu màndee duñ ko tal kon bàyyi leen foofu kon mu tere ko inkaar li nga xam ne moom mooy munkar bi maa an na surbal xamr munkar dafa leer nañ ñi ne munkar la waaye jamono ñoom ñay màndi jullit ñi di leen noppalu ci seen ay kon loolu tax alxadaru min islaahi xata yuaddi ila xatayin akbaru min beneen yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jamono munaafiquun yi yonent ndax Qur'an day wàcc ne diw diw diw munaafiq la lan moo tax mu tere woon ñu rey leen munkar azam mu ne li tax biñ ko waxee ne ni lan kan moo ko waxoon loolu Umar ne ko daani aqtul haadal munaafiq mu ne ko laa yaa Umar lu mu ci teg balaa ñuy wax ne Muhammad yaqtulu asxaaba kon dañuy yàq ba jéebaane ko bu boobaa kuy am ay xarit am ay àndandoo am ay saxaaba di leen rendi est-ce que keneen dina dugg ci ci li nga nekk déedéet kon yatarattab ala dalik moo tax daleen leen doon bàyyi ci ci groupe bi loolu tax qaala al allaama ibnu al inkaarul munkar ala arbai darajat an yazul wa an yaqilla wa in lam yazul an yaxlufahu ma huwa mithlu an yaxlufahu ma huwa charrun min saabian idraku ltabia allati nachaa anha alxata xatta la tubaliga fi islaaxi mooy nga xam nature bi tax nit ki juum lan mooy cosaan lan moo poussé nit ki ba mu def njuumte ni xam ngeen ne tabia doomu aadama doomu aadama juumkat la waaye lan moo tax yonent bi saa sallam wax ci xadis istawsu bin nisaai xayra ah li tabiatihinna mu ne moo tax eh, alxaafid ibnu xajar bi muy charxe xadis bi mu ne li annahunna tubicna ala naqs seen nature li ci ëpp mooy lan mooy dañoo sentiment jigéen ñi dañoo bari sentiment kon parfois mën nañu juum mais li ngay corriger njuumte li am na nu muy demee boo bàyyiwul xel ñoom ni leen yàlla bindee li ngay yàq mooy ëpp li ngay defar kon idraku tabia allati nasha'a minha alxata beneen bi mooy tasxiixu tasawur allati nasa xasala minhu alxata natijatan li ixtilaali suñu waxee tasxiixu tasawur mooy xadis suñu yaay anas mu ne ay gaa ñëw nañu salaasatu raht jaau ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ay ila azwaaji ñett ñooñu ñëwoon di laaj nan la yonent bi sallallahu alayhi wa doon jaamoo yàlla ba far sax ñu xeeb ko kon ñooñu li leen juumloo mooy xalaat bi ñu am ci jaamu yàlla waaye du question que ne ñoom gëmuñu woon ne nit ki war naa mën a takk jabar war naa mën a julli war naa mun a nelaw war naa kon ñoom tasawur bi ñu am ci ibaada ak tasawur bi ñu am ci zuhud ak tasawur bi ñu am ci mataaxu dunia tasawur bi moo nekk xaati loolu moo leen dugloo ci loolu ñu defoon moo tax yonent bi saa salaam bi mu leen di corriger newu leen li ngeen def lu bon la newu leen li ngeen def nangam mais daf leen xamal mbir mi ci boppam fii la njuumte li nekk fii la problème bi nekk problème bi mooy nit ki mën naa nelaw mën naa juum nit ki mën naa mën am ay soxna mën naa di woor mën na di dog après nag mu ne leen fa man raxiba am sunnati fa laysa bi foofu lañ delluwaat moo tax ibnu umar kenn la ci ñoom abdullah ibnu umar nee na moom après da doon wax ne moom mën na woor bis bu nekk ñu ne ko déet wàññil déet wàññil muy wàññi di wàññi di wàññi ba mu desee lan su wooree tey dog dog dog suba mais nee na bi mu demee ba magal nee na daf ko dafa bëggoon teg affaire bi ci suuf waaye mënatu ko parce que engagement la bi mu jëloon ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon il faut mu respecté ko mais demoon na ba mbir mi diis ci moom kon loolu tasxiix fii at tasawuf beneen bi mooy ah bi dafa ëpp ah. التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص koo xam ne njuumteem njuumte la ci santaane yàlla yi kon yow su fekkee ni waa ji yow la yow la tooñ daf laa saaga dafa lekk sa alal daf laa wax lu la neexul bu boobaa yow mën ngaa muñ war ngaa mën a muñ mais su fekkee nag njuumte li mu juum nag benn xaq la ci xaq sharia yi bu boobaa laaj na nga gaawantu corriger mais bu fekkee nag yow la tooñ bu la neexee nga bal bu la neexee nga bal loolu tax yonent bi saa salaam waa jooju nga xam ne dafa bifoon mbubu mi xoj ko ba mu gees dafa ree rek dafa tourné ree xool ko ba mu kii te waaj daf ko doon laaj alal mu paree di ko jox di ko jox di ko jox ba waa ji waa ji sax ba mu delloo dafa ne leen man jóge naa ci nit koo xam ne moo gën kenn gënu koo tane moom day joxe joxe koo xam ne ragalul ñàkk war nañoo séparer it diggante koo xam ne chaque jour mu def penalty yi ak koo xam ne c'est la première fois mu def ko ak koo xam ne bàkkaar bu mag la def ak koo xam ne bàkkaar bu ndaw la def loolu mooy tafriq bi ba léegi ak koo xam ne njumte yi muy def danaan fang da koy def maa tey ak koo xam ne njuumte yi muy def day fexe sax di ko nëbb day fexe di ko di ko nëbb kon ku ci nekk booy jëflanteeg moom dangay xool nan nga war a jëflante ak moom maarifatun durufi lmuxti yusaaidu ila maarifati tariqa alsalima fi altaamuli maahu nga xam it waa ji bi muy def erreur bi ci yan condition la ko defee lan moo ko gaaroon ba mu def ko lan moo ko gaar lan moo ko poussé ba mu def ko loolu benn xadis ubada buni shrahbil sharahil mu ne moom dafa jóge dafa ñëw Madina mu ñëw bi muy dugg Madina mu romb benn tool fekk mu ngi sonn xiif mu dugg ci tool bi fekk mu am nga xam ne buñ doon wax dugub la mbool yaa ngi fees dell mu boxom ci ba ba boxom ci eh, kii yi nu mu tuddati mboolu dugub bi boxam ci lekk ba xelam dal avant muy génn borom tool bi fekk ko fa poñe ko nangu yére bi mu yore woon ba pare poñe ko ne ko xaar ma yóbbu la ci kanamu yonte bi sallallahu alayhi wa wax ko li nga xam ne noonu nga def sama tool bi mu yegsee bi ko yonte bi sallallahu alayhi rek dafa ne ko arsilhu wa rudd alayhi kisaa te nga ko bàyyi te delloo ko li nga xam ne moom mooy ay bagage am delloo ko yére bi mu ne ko ama allamtahu id kaana jahila wala atamtahu id kaana jaia urdud alayhi kisaa kon kii dafa xiif ba bët yi xiif ba sonn kon moom daa soxla ko leer waroo woon xaar sax ba muy boxam ci mbool yi di lekk yow ko waroon jox lu mu lekk ñaareel bi mooy comme moom xamul da nga koo waroon a jàngal waaye jox ko li mu moom kon muxti bi ci boppam war ngaa xam ci yan zuruuf yan condition la nekkoon ba loolu tax mu def li nga xam ne moom la waroon a def asalibu islaax alxata léegi nag ñu ñëw ci méthode yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi noonu la doon corriger ñi nga xam ne noonu lañ doon ñiy def erreur bi ci njëkk mooy almusaaraatu fi tasxiixi alxata wa adami ihmaali mooy gaaw a corriger njuumte li bañ loolu mooy lan am na ay njuumte yoo xam ne kenn du ko bàyyi mu jàll am na njuumte yoo xam ne kenn du ko bàyyi mu jàll xool pour wone ne loolu dafa am bu ñu xoolee sunna yonent bi saa sallam nekk na ci minbar ba benn waaye dugg ci jàkka ji rek toog nu mu def ca saasa la réagir dagg xutba bi ne ko su lekk xum fa salli mu xaar ko ba mu pare ne ko jàpp fii kat place la place la boo xam ne kenn waru fii dugg toog lu dul mu julli bi mu réglé problème boobu mu continuer ba beneen mooy xadiisul musii salaatu xadiis abu hurayra waa jooju nga xam ne daa ñëw ci jà ci jàkk ji julli bi mu dóor ko mu daan bi mu paree lu mu ko wax qum fa salli fa innaka lam tusalli ba muy ñaata yoon ñetti yoon après mu ne ko yow mi yàlla yónni man kat lii ma def mënu ma cee yokk dara de après mu ne ko waaw léegi boo defee nii nii ngay def nii ngay def ba mu jeex beneen mooy ñett ñi nga xam ne it dañoo waxoon ne dañuy tabattu salaasatu raxtu boobu yonte bi ñu waxee loolu ca saasa la la leen corrigé xamal leen lan la ñu war a lan la ñu war a def beneen misaal mooy ki nga xam ne it ajjuma la ñi ñi toog defar seen sàppe muy ñëw di jéggi mbooloo mi yonent bi lu mu ko wax ne ko ijlis faqad alayta wa aanayt toogal lëjël nga ñi ñi te lor nga dafa dagg xubbaam ne ko ijlis faqad aadayta wa aanayt kon ca saasa munoon naa xaar ba pare xutba ne waa ana waajooju waaye deful lool ca saasa la ko corrigé kon am na yi nga xam ne erreur yoo xam ne doo bàyyi ba mu jàll mais ci tàng-tàng bi lañ koy corrigé ñaareel bi mooy alhuduu fi taamuli ma al muxti wa rifq bihi mooy da ngaa war a dal yërëm ki nga xam ne moom ngay corrigé nga bañ nga bañ koo gëdd bañ koo wax ne yow yow xanaa ñun moom li ñuy njëkk wax mooy xanaa daw da ngaa dof yow ñaata yoon laa la wax lii déedéet xoolal yonent bi saa sallam xadis bi ñu tuddoon sànq Muawiya bu nil xakam as-Sulami qissatu shab ci beneen benn waay bu ñëw xoolal de ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ko idan lii bi zina idan lii bi zina est-ce que dane xusuuhu fa xullu dafa ne ko uddunu jege si mu jege si mu waxtaan ak moom ba ko yemul ci loolu waaye da koo ñaanal saxaabi yi bi nga xam ne moom moo solo xadis bi dafa ne waa jooju bi mu génnee place boobu njaaloo bokk na ci li mu gën a bañ xelam sax du ko ko indi a rifq rifq ak dal beneen bi mooy saxa arab yi boobu ñëwoon ci jàkka ji a rifq ki ñëw ci jàkka ji saw fa moom it yonte bi saa sallam da ko yërëm taqdimul badilil munasib mooy sooy teggi dara da fay teg dara sooy teggi dara da nga fay danga fa fay teg dara booy tere nit naan ko bàyyi lii da nga koo war a tegal beneen badin mooy waa ñi nga xam ne day ñëw bés bu nekk muy yelwaan man daal kër ga bàyyi moo fa dara man daal temps yi ma si dafa am ordonnance temps yi daal nangam xool yent bi saa sa new ko new ko rek bàyyil yelwaan waaye da utal badil badil bi mooy lan ne ko loo am mu ne ko am naa nangam kër mu ne ko demal nga ji jëli ko mu jëli ko mu ne kuy jënd lii si sàngam gars yi wax ba mu jaay mu ne ko demal nga defi nangam demal nga gori mat boo goree demal nga jaayi boo jaayee bu fi ñëwaat lu dul heure sàngam mu defal ko benn timing boo xam ne sax problème waa ji jàpp ci ñëwaat ne ko joxe naa dépense fan yii maa ngi joxe dépense dinaa ci jënd ataay dinaa ci jënd boisson danaa ci dessert sax temps yi commencé naa koo def te desal naa am na lu ma denc ci kondaane bi mu ne xool après badil munasib xoolal mu nattuloo ko mu ne ko xoolal léegi lii nga jàpp léegi ak la nga jàppoon bu njëkk lu ci gën mu ne ko nag lii moo gën nit ki di ñaqal boppam moo gën muy laaj nit ñi jox nañ ko mbaa joxuñu i'taa'uhu al-waqt al-kaafi li tasxiixi yi il faut nga jox ko durée parce que am na ñoo xam ne dañoo tàmm def naka su dul noonu kon mënoo benn bës rek benn bës rek nga ne leen il faut ñu bàyyi xool leen yàlla subhanahu wa moom mi nga xam ne ci alquran sàngara bi ko nit ñi tàmmee bi mu ñëwee di ko tere est-ce que dafa ñëw rek ne ku ti sàngara rek door leen ko juróom ñetti fukki yar déedéet darajat sunnatu tadarruj yonent bi saa bi gaa yi nekkee ci shirk makka biñ ko yónnee ñaata at la woote ci makka daawa sirriya ñaata at la woote ci tawxid ah 13 ans ci benn mbir kese est ce na leen kaa leen julli parce que dañoo tàmmoon shirk mu tasaaroo ci jazira al arabiya il faut mu jox leen temps bu mot pour loolu mën a effacer beneen bi mooy bi mu ñëwee xadis bi muy wax suñu yaay Aïcha ne ko lawla anna qawmuk xadisi ahlin bi jahiliya ah lu muy def toxal kaaba gi fiñ ko tabax yóbbu ko ci maqam fii qawaid ibrahim waaye comme ay ceddo lañ ba léegi am na lu ci des desitu ceddo gaañi fi mu nekkoon kon lii moo tax ma bàyyi alxiwaar wal iqnaa il faut nga waxtaan ak ki nga xam ne moom moo def erreur bi ba mun koo convaincre loolu it feeñ na ci waa jooju doon tàggoo ngir njaaloo yonte bi lu mu ko wax atardaahu li atardaahu mu ne déedéet mu ne ko wax kon yow bëggoo ko ñu def ko ci say mbokk kon kan moo bëgg ñu def ko ci ay mbokkam ah mu ne wax nga dëgg de al iqna da koy convaincre te loolu mooy manhajul quran loolu mooy manhaj yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, des na ay xawaayid yu bëree bëri mu ne bi ñuy mujjeel mooy bi mooy indama tuslixul xata udkur jawaniba alsawaab wamdaxhu wasni alay nit ki su defee erreur boo koy corriger it waxal li baax li nekk ci moom par exemple nga gis benn booy boo xam ne jàmbaar la lool moom waxtu yu juróom ci jàkka ji la koy jullee waaye nag problème am mooy lan mooy day criss cross fa leen kooku farlu bi mu am waxtu julli bu jot jàkka ja lay def mais day criss cross léegi nag ne ko yow macha allah yow bu baax nga li nga xëree ci diine ma sa morom gis naa leen ñuy def nangam mais xoolal sa bon yow sax amoo problème amoo problème defe naa daal li may seetlu waaw non daa mel ni sa tubéy bi daf xaw a wàcc de mais nga tudd jawaani bi xoolal Ibnu Umar nee na dafa gént benn gént mu ne après mu ñëw au mu wax ko yonent bi saa salaam mais mu rus ko mu wax ko sëram bi nga xam ne moom mooy Xafsa mu ne dafa gis ci guddi gi ñi nga xam ne dañ leen di bugal bugal yu metti après mu ñëw wax bi saa salaam ne ko ni'ma rajulu Abdullah ibnu Omar gis nga da koo tagg après lawla annahu la yaqumu layl nee na bés boobu ba mu ko waxee loolu tàgg ko gërëm ko ne ko ah est-ce que Ibnu Umar kenn gënu la ay sudul woon ne da nelaw guddi gi yëpp mu ne depuis ba bés boobu ba léegi mus ko musul bàyyi li nga xam ne moom mooy ah ak xadiisu abi bakra abi bakra daa ñëw ci jàkka ji ñëw fekk gaañi ko mu daw gaawantu ñëw kàbbar ci ginnaaw rakka bi ba pare ruku après dox tuuti dab rakka bi continue bi ko gars yi yant bi saa saa bi mu ko gisee lu mu ko wax zaadaka llaahu xirsan wala taud miskine da ko encouragé zaadaka llaahu xirsan wala taud hadihi min asalibihi sallallahu alayhi wa sallam annahu kullama kaana هذا شرحه يطول وأنا مشغول وأنتم مشغولون kon incha allah eh, bokk na ci loolu it axiran wa laysa axiran taqdimul badi isaaratul amma ala al muxti isaaratul amma ala al muxti mooy yow nga bañ koo corriger mais nga wut keneen ñeneen ñu la koy corriger mooy comme waa ji doon lor dëkkandoom yonent bi boole kook société bi beneen bi mooy alhajr mooy xaw koo xaw koo yar tuuti mel ni ñetti ñi nga xam ne dañoo taxallufoon ci xaswatu tabuuk kan ak kan la asalaasa wa ala salaasa ka kaabon wa hilaal wa ikrima yamin kon ñooñu it yonent bi saa salaam dañuy dugg ci jàkk ji di julli waaye da leen di nuyu rek dem yoonam loolu it moyen la ci islaax alxata hada wa sallallahu wa sallam ala rasuli muhammad naqul hada ma tayassara jam'u wa tawaffara iradu fi ma hada almawqif fa a'tadiru ida kuntu ma a'taytu almawdu'a haqqa li anni fi idadi almuhamilin wa jazakum allahu xayran ala husni istimaaikum axukum Saïd Khalil Khadim incha allah حاولنا ستحصلون على ال إن شاء الله انتهى الدرس وأنا لست من بين العلماء إذا لست من الذين يسألون فيجيبون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في عندكم عمل بعد المغرب؟ ما في ما في أي نشاط. كم ساعة بقي من المغرب الآن؟ ah salaamaaleykum ban heure la ñuy julli timis ah. 26 bon euh, su amul euh, kii mën nañoo def final bi de waaw ci ci ci 15 minutes. dugal dugal ko waaw ah, bii mu ngi fële xaaral après ñu jël ko ci machine bi. barakallahu fiik. waaw si léegi kii euh, yooyu